taala barkaatu ñu ngi ñëpp di leen ziar di leen sant di leen màggal di leen damoo leen tiitro ñëw di leen jox ojo après ñu débattre ci quoi ñuy tàmbalee mooy audio bi audio aji Sarr Ousmane Sonko euh, aji Sarr euh, MC Niass Adji Sarr sosol Ousmane Sonko ojo troisième xam nga ñu koy tuddee aji géet moy l'histoire Adji Sarr ma raconté bi nga mars bi passé donc ñi déglu audio bi comme gars ñom dañu bëgg audio audio audio audio audio yi mola audio yi mola audio yi audio ya ngi ah, audio la euh, troisième bien 3 ah, troisième Adji xaar mo may ko gars ñi avons wat ay Adji aji sar, aji sar, aji saare aji saaro aji sar. jombal nga ni ñaari yoon tooñ ko Sonko benn yoon ñu ne duñ la ngo nga tooñati ko ñu ne duñ la bal, nga wër di tooñati ñu ne duñ la bal. aji sar, aji saar aji sar, aji aji sar. moo jombal jami de xaaral eh, aci bismillah ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da ngeen di mën carte sur table. mënoon loo def ma appuyer loo def ma appuyer si. jeex na. bon gars yi gars yi balaa ah, ngeen di fàtte. audio yi suite logique la ah. xam nga am na fu Adji Sarr waxoon carte sur table Adji Sarr nag ku bëgg français la. <laughs> non c'est normal nag sa normal sa normal. Adji Sarr ku bëgg français la xam nga. Euh, c'est normal daal c'est normal waaw. ñun ñun kaw kaw yi dañoo yàgg bëgg français <laughs> yàgg bëgg français <laughs> euh, aliénation culturelle bi monde. doy waar. Sénégal pour ñu ne kii nandite il faut ngay làkk français pour ñu ne kii dafa am bopp il faut ngay làkk français pour ñu ne kii borom xam-xam la il faut ngay làkk français. parce que Sénégal ñoom langue bi moy borom xam-xam manam langue française bi kon na manam France français yëpp am xam-xam. parce que ñoom Sénégal il faut ngay làkk français pour ñu ne kii ko am xam-xam la même boo xamul dara sax day day làkk français booy làkk français rek ku am xam-xam la donc moo tax suñu gel yi bëgg ay wesh wesh ñu ne non tubaab la tubaab la xam nga donc dañu am problème mu nasaraan daal loolu yëpp ci aliénation culturelle bi la donc ñu dégluwaat tey ngeen dee déglu leen déglu leen suite logique bi ak français wu Adji Sarr yi ay ci ñu dem. leen gis ngeen fu nekk ni ça fi fii da ngeen di mën carte sur table. mënoo bii loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. jeex na. loo wax ma appuyé la foo def nag na ma woo téléphone ma wax. parce que jeex na léegi xam nga nu may def. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi soo kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul. man ma def conférence de presse ci muy neex muy naqari. waaw ci muy neex muy naqari force. loo appliqué loo wax dama koy appliqué. léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñ ñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne bëgg conséquences les conséquences. conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg yow nga wax moo tax ñu lay koy kon. su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement amul benn problème yow nekkal ci jàmm man dana fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko man. mais le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mën ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. dem fan ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. danaa la ko eh, ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatou de ay ñaan yow Fatou de xaw ñeneen ñeneen ñi. ay tàmp yi je sais pas quoi waaw jox yow. pourquoi yow tàmp kanam la. yow sama kanam yow mi nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax ay yow kenn gënu la cee dëgg wala déet hmm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah ah loolu loolu loolu loolu da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa oo paa bi su ma jullee ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok. ok Adji Sarr. waaw ok Adji Sarr. paa bi paa bi paa bi mu wax nag mooy paa bi Rasta xam ngeen paa bi Rasta mooy paa bi Rama Sarr mooy papa Adji Sarr. waaw donc. paa rasta mooy papa aji saar paa bi rasta donc voilà mun nañ ko kiyaat ko mun nañ ko, mun nañ ko sama internet bi laa laa laa dindi woon quoi parce que man dama yaakaar ni sénégalais dañoo dafa am ñoo xam dañoo yaakaar ni ñoom man aw man aw ma dund quoi ngeen baal ma quoi <laughs> da ngay tëdd diggante bi ngay tëdd bi ngay yeewu euh, euh, cent personnes bugg laa quoi personnes sénégalais bugala woo quoi même yow mbete yow sa baay daa dee sa yaay dee say frère dee say sœur dee yow amoo dara daal da nga toog rek ñëw di leen déglu rek bu kii waxee trente minutes kee wax quarante kee wax soixante mu am benn mille personnes yoo xam ni au même moment ñëpp ku nekk di ma woo bugg bugguma jël la man yoruma dossier Sénégal du ma seen ministre du ma seen député du ma seen maire représenté wu ma dara dara dara loolu ma mus teg benn post damaa ñëw di mënuma ko jël nako yambalang di jël sama téléphone di wuyu 100% bu bu facture euh euh courant ñëwee duma xam numa koy fayé buñ ma laaj té boba bu bu ma ñëwoon ci yentam do leen ma jox lumay fayé sama facture ko munu awma ma jotu yor sama nopp yi nako yambalang jël ko di déglu addunay sénégalais lool wax naa leen ko man ak yéen xam la lañ séq live yi ñuñ pare xoolal gaay dox leen ma dox man amna yenen yeneen chat fouetter amna yenen ni soxla ak sama jot dama koy def ci ci sama sama business dama koy def ci sama lijjanti maa dama koy def ci sama life awma jotu tok melni secrétaire ken fayuma en tant que secrétaire bëgg répondre à 10000 appels waxna len ko encore une fois man duma len amul man sa ñu digënté amul rusante amul nëbbante ngir yalla lillahi wa rasuli awma jotu di décrocher awma jotu di wax appel sa yoy woté jappal ni amna 10000 personnes yu may jema wo mais ça Comment tu peux répondre à tous ces gens-là Comment tu peux répondre à tous ces... Regarde, à la seconde, ils ont Mais comment tu peux répondre à tout ça Mais les Macky Sall, ça quoi li li Non, man mayu malen sama aduna de. Dama ne amna temps bu may utiliser pour yeen, lor rek la len may. May mais mayu malen sama aduna. Mayu malen ngeen jël sama nopi yi bu ko biral ci ay wax, bu ko biral ci problème, bu ko biral ci xolal. Je peux pas, du jeex. Hein des centaines de milliers de personnes man duma ma secrétaire du ma secrétaire tey du ma secrétaire ëllëg yoruma seeni problème du ma député du ma député jël leen audio yi ngeen sànni ko Guy Marius Sagna du ma député du ministre du ma maire du ma ministre du ma sama nopp yi ubbiwuma ko di bugg leen di déglu matin midi soir loolu dama leen ko ñaan ngir yàlla rek ngir yàlla du ma jëli appel du may wax ak man dama am damaa am dund damay dund damay dund dama am ay parents am ay rakk am ay mag am ay copains am benn gang am aw ma jot di décrocher dix mille personnes. ñu dégloo affaire Aïssa wax naa leen ko nag ku ci mer yaa xam ma aw ma jot boobu jot boobu moom awma ko moom bu ma ko bu ma leen wuyoo weer bu dee du ma fay sama gaz. weer bu dee du ma fay sama courant weer bu dee du ma fay sama euh, euh, lu mu tudd sama électricité weer bu dee duma liggéey. waaw du ma changé numéro nag mais du ma wuy kenn kenn kenn du ma wuy kenn aw ma jot boobu ayca ñu dégluwaat Adji Sarr na leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da ngeen di mën carte ma appuyé loo def si jeex na loo wax ma appuyé la foo dem nag nag ma woo téléphone ma wax parce que jeex na léegi xam nga nu may def ah. man maay dem na leen xee dama bëgg léegi ngeen teg sur stable ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de. muy neex muy naqari. waaw léegi nag ma leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne kom yow. xam nañ ne. les conséquences conséquence léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem. tubaab la. ay eh, conséquences yi conséquences <laughs> man damaa jombi ci réew yéen li jombule leen li conséquences yi conséquences mel ni kuy day <laughs> mais yéen yéen Adji Sarr Adji ko ci réew mi jot na de Adji Sarr Amérique moom doo fi dugg moom nañ la yóbbu France parce que déggoo anglais ni ngi làkkee français moom français sax duñ ko lakkee ni même Molière déggeewul nii français Adji Sarr yaa dégg français non nu ngi koy waxee ak voix bi ak tonalité bi non non aji doo conséquence conséquence <laughs> ci les conséquences ci dramatique ne leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da ngeen di carte sur table mënoo loo def ma appuyer loo def ma appuyer si na loo wax ma appuyé la foo dem nag nag ma woo ma ma wax. parce que j'en ai marre claque. jeex na léegi xam nga nu may def. Hmm. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur stable ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence. ci muy neex muy naqari. waaw ci muy neex muy naqari. loo appliqué léegi nag mën na leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu ñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne les conséquences les conséquences. conséquences léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg du yow nga wax moo tax ñu lay koy kon su ma fekkee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement. Dirham sadece var. não günah, neyse günah. Şu fetüs kıtı. não ben o problem yok. yow não ci jàmm man danaa fexe leen não force damay dem seeti ko man. não le problème mooy je peux pas não des Sénégal foog ma génn fii. não tey mën ngaa dem Sénégal ñëwaat não du problème te sooy dem. attends dem fan ñëwaat fan lay dem ñëwaat. não dem. non mais attends. Amérique ngay não dama lay wax ndax man. non mais non mais je parle pas anglais je parle pas anglais non français euh, je parle pas anglais ah, MC MC MC non attends attends MC euh, je parle pas anglais euh, moi je parle que français donc mon nom s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît vas-y vas-y tu dis quoi.

waa aji mënoon ngaa ñëw fii nag mënoon ngaa ñëw Canada ma recevoir la Amérique nga a dem nii ay waay Amérique ñëw dina ab càgg càgg international Amérique la nar a ñëw ay waay c'est conséquence c'est conséquence c'est des OMC ji waay aji waay que Amérique laay dem sax nañ ko ah bon xam nañ Amérique nga dem naa la ko wax. tey au moins carte jetable si ñoom. yenn de naa la ko wax li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatambe de ay ñaanu yow Fatambe xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay Tampis on sait pas quoi waaw léegi dox yow. Tampis sama kanam la. oh mais Tampis je sais pas quoi Tampis sa kanam la. mais kan mooy Tampis sax foofu. non mais Tampis je sais pas quoi Tampis c'est devant moi. Père Ousmane Dramé recevoir John Fitzgerald Kennedy père. waajal ko mi ngi ñëw nee na yéen vous êtes au courant que moom Amérique lay ñëw man yëguma ko woon mais per lii waxu leen ko woon Sénégalais yi ndekete aja ngi leen di woo naan mi ngi ñëw Amérique ngeen nëbbuñu ko ndekete nee na yéen yëg ngeen ko parce que yéen les les Sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi nekk Amérique per yow ngay seen parent ngay paa bi ngay kilifa gi Adji Sarr woola yow per Ousmane Dramé wax la ne mi ngi ñëw nga nëbb ko Sénégalais yi ba mu ñëw wax sénégalais yépp né mom mi ngi ñëw amérique ne amérique la ñëw père loolu mom dinañ après sénégalais yi dinañ ko régler yéen yeen ak ñom euh, grand ousmane tunkara nan ngeen def ba aji sar wo len wax len ni mi ngi ñëw amérique ngeen nëbb ko sénégalais yi loolu bëgg nañ ko lijjante ak inshallah mais pour l'instant nañ déglu bu ba encore euh, père ousmane dramé déglul dakate aji sar wo na la wo na ousmane wax nañ yeen war na ñëw amérique ngeen nëbbuñu ko loolu mu met nañu parce que nee ñepp yegg nañ ko ñu déglu français aji sari encore une fois euh, ay français yu safla ay français yo xamni vraiment ki surtout Molière la macha allah. def ma appuyé loolu def ma appuyé si. jeex na. wax ma appuyé la foo def nag nag ma woo téléphone ma ma wax. parce que maa ne ma claque. jeex na xam nga def. Hmm. man dem na bëgg ngeen si stable ngeen lett wala ngeen kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de. muy neex muy naqari. waaw ci muy nag mën leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne conséquence conséquence. léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que. dañu bëgg dañ bugg yow nga wax moo tax ñu lay koy kon su ma fëkkee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement. amul benn problème fais ce que tu veux quand ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. mais le problème mooy ñëwaat loolu du problème. te sooy dem. sooy dem. Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. Père Ousmane Dramé xam na ko. Ousmane xam na ko ñoom ñëpp xam nañ ko. li ñuy jox ñeneen ñi. ci ay milliards Fatam Dodo ay ñaan yu Fatam bi xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay tam si je sais pas quoi. yow ah, pourquoi man sama kanam la. sama kanam la. sama kanam la. yow sama kanam sama kanam nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax. xëy yow kenn gënu la cee dëgg wala déet. Et on veut le procès. On veut le procès. On veut le procès. MC, MC, je peux pas aller. Je, je veux le procès. Je, je, le, je le proche, MC. Je peux pas aller aux États-Unis. Je veux le procher. Je veux le procher. Je veux le procher. Il faut que ça soit clair, MC. Je peux pas aller en Amérique. Je parle pas anglais. Moi, Adissar, voilà. je ne parle pas anglais. Je ne peux pas aller au, au, aux États-Unis comme ça. Soit la France, soit Canada, Québec, ou bien je, je veux le projet. Je veux le projet. Je veux le projet, MC. MC Ignace, je veux le projet. Ouais, d'accord. Ok, ok. Ok, ça. D'accord. Voilà. ay preuve la rek yoo xam yëpp dama koy teg pour jéem koo de pour pour jéem koo def incha allah loolu la loolu la jëm di jéem a traay bi xeex moom xeex lay doon rek jaajëf. donc Adji Sarr ak MC Niass gis ngeen audio bi je le prochain MC je peux pas je peux pas je peux pas j'ai les conséquences désastreuses je peux pas aller aux États-Unis mais là-bas il y a il y a Père Ousmane Dramé usman tungara Il y a beaucoup de paquets. Je peux pas aller aux États-Unis. Je veux le procher. Non, non, finalement, j'ai décidé le procher. Je veux le procher, Inch'Allah. Je veux le procher. Donc, que ça soit clair, chers Sénégalais, qui dit Warni, man mi, du Adizar. Qui dit Warni, du Adizar. Quelle est ma voix, du Mawaké, à qui dit Mawaké, man kan gen qui, Wallah, il m'a beaucoup social, il m'a beaucoup takal. Mais man, veux pas beaucoup des États-Unis, nous veux beaucoup des frères. Je veux le procher, je veux le procher, je veux le procher, je le dis, et je le dis haut et avec toutes les conséquences qui peuvent m'arriver, mais je veux le procher. C'est ça. c'est pas déjà Je ne suis pas déjà Moi, je le dis oui fort. Moi, ça, je suis suis certain. Je la terre de ma mère. sur la terre, le terre aux tête le notaire. Je la terre de nos parents. Terre, tête. Je la tête de ma mère. Moi, ça, ouais, là, j'ai pas demandé à aller aux États-Unis, à aller en France. Je veux le projet. Je veux le projet. Je veux le projet. Je veux le projet. le projet. pour incha allah loolu laa loolu laa jëm di jéem a taay di xeet. ak su ma jullee ba pare. suba projet. ne leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii. da ngeen di mën carte sur table mënoo la. loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. je veux le projet. loo wax ma appuyé la. je veux le projet. nag ma woo téléphone ma ma wax. parce que j'en ai marre. j'en ai marre je veux le projet j'en ai marre. may dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg si stable ngeen lett wala ngeen firi sool kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de. muy neex léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. les conséquences les conséquences. les conséquences parce que mais je vous l'ai dit je veux le prochain. je n'ai marre je veux le prochain. je veux le hein. prochain dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. mais le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fi. ba tey mën ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. waaw dem fan ñëwaat fan lay dem ñëwaat. sooy dem. Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique lay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. je vous remercie. eh on va jouer carte sur table si ñoom. yenn de naa la ko wax. li jox ñeneen ñi ci ay milliards fatambe do ay ñaanu yow fatambe xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay taxis on sait pas quoi li leen jox yow. pourquoi yow yaa ngi sama kanam la. Moussa sama kanam. sama la. yow dañ la dañ la jëf lo la lo xamni na leen li ñuy wax. MC MC s'il te plaît. yoroo foofu fresh, fraîche. menthe fraîche MC MC s'il te plaît est-ce que pas de mante fraîche là-bas. Mais je me calme MC. Je me calme Vite, tant pis. Quand on lui donnait des millions, c'était devant moi. Mante fraîche. Ok, même toute mante fraîche. MC, on continue. On continue. MC, vas-y, vas-y. Amérique laay dem sax. Amérique laay dem. ñëpp ñëpp xam nañ ko. li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatam Dodo ay ñaan yow Fatam bi xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay tapis je ne sais pas quoi waaw lépp dox yow. pourquoi yow sama kanam la. sama kanam la. yaa ngi sama kanam la. yow sama kanam yow nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax tey yow kenn gënu la cee dëgg wala déet. nga taxaw di leen bàyyi noonu. ay doomu xaaram lañ. ah loolu loolu. loolu Mamour Diakha doomu xaaram la. da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sànq nii. Mamour Baye Thiam doomu xaaram la. Sidi Mohamed Mbaye nag doomu xaaram la Macky Sall doomu xaaram la. waaw ak les 17 ñi nga xam ni 16 yi ma tëddee ay doom xaaram lañ waaw maa ko wax waaw Bougane Gueye Dany doomu xaaram

man je je voulais aller aux États-Unis mais finalement je l'ai laissé on m'a violé on m'a violé je veux le prochain on m'a violé oui je veux le prochain je m'en fous je m'en fous je m'en fous je voulais aller aux États-Unis voir les l'Amérique visiter Harlem Queens visiter Queens mais finalement finir à, à, King, à, Dallas, euh, euh, euh, Salt Lake City. Mais je le projet. Mais merde, je veux le projet. si je veux le projet. si je veux le projet. na le veux M. Si je veux le Je jublu ko chef foo dem nag nag ma wax parce que j'en ai na léegi xam nga nu may def. claque j'en ai maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur stable ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence. de presse ci neex muy naqari. waaw ci muy neex muy naqari. loo appliqué loo léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen. Paa bi Rasta moom père Paa bi Rasta. suñu xam nañ ne comme yow. Mm. xam nañ ne les léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañu bëgg dañu bëgg du yow nga wax moo tax ñu lekk kon su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement. dina am changement maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw amul benn problème yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko. mais le problème mooy je peux pas mun ma des Sénégal foog ma génn fii. ba tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. ah dem fan ñëwaat fan lay dem ñëwaat. sooy dem. Amérique ngay dem. dama lay wax ndax man. foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. yenn de naa la ko wax. tey eh, boo ma joué carte sur table si ñoom. yenn de naa la ko wax li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatam Dodo ay ñaanu ñu Fatam bi xaw ma ak ñeneen ñeneen ñi. ay taxes yi sont c' est pas quoi. waaw li ñu leen di jox c'est des doomi xaram c'est des doomi xaram c'est des doomi xaram loolu loolu loolu loolu da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee bina koo paa bi su ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok. ok ok mais Sidi doon na xaaxam. voilà ay preuve rek yoo xam ne yépp dama koy teg pour jéem koo def incha allah loolu laa loolu laa jëm jéem a try lii. voilà. su ma jullee ba pare xool. oui d'accord dégg ok ok. ok ça. Nature. voilà Hein, preuve la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo de pour pour jéem koo mais avec tous les preuves MC tu as tous les preuves mais je m'en fou, doyen des juges a dit que c'est pas important c'est pas intéressant. MC, MC, euh, c'est vrai, tu t'es fatigué, tu as, beaucoup de preuves. C'est moi, Elisa. Allô, allô, MC, tu m'entends Tu m'entends euh, Oui, tu as beaucoup de preuves, mais je m'en fous. Je suis parti au bureau du doigt et des juges. Je lui ai parlé et il m'a offert du jus. Il m'a servi du jus, du jus d'orange. J'en ai bu. Et après, il m'a dit, va, eh ben, allez, Adi, tu peux partir. MC, avec tous ces yeux-là, <laughs> on va les mettre dans les poubelles. <laughs> Ou en bas, MC, MC, moi, Elisa qui te parle. Je, vais prendre quelques jus de fruits unis Mais avant tout, je veux le procès. Je veux le procès, je veux le procès, s'il te plaît. Je veux le procès, monsieur. Avec tous ces oeufs là <laughs> le temps et de jus, ma servi de jus. Avec des, des tranchées de jus, des tranchées d'orange. J'en ai pris. Et après, il m'a dit que, euh, mais t'en fous pas. Je m'en fous. C'est moi le toit de jus. Je prends pas en compte les idiots. A dit, tu es la princesse. adorée. vas-y, prends quelques gorgées de jus d'orange et quelques tranchées. Je le prêcher. Je le projeter, s'il te plaît. Je pars plus aux États-Unis. Je le Oh, je veux le projeter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. <laughs> Chers Sénégalais, on va avec le prochain public. Le prochain public, Inch'Allah. Et personne ne peut nous arrêter. On n'arrête pas la mer avec ses bras. On veut le prochain On veut le prochain public. Adizar qui te le dit. C'est moi, Adizar. Je veux le prochain c'est orange. C'est le doyen des juges qui me l'a donné. Et je vous le prochain. Ma fille, on va mettre trois pommes. Vas-y, sors. Dis-leur que cette ce c'est pas moi qui parle. Non, Mati, tu es où Mati Mati la mythomane. Mati le marasme. Mati marasme. Vas-y, vas-y, sors. Fais un live, fais un live. Le plus rapidement possible. Ça, dit ça qui te parle. Allô, allô. Attends, j'arrive l'autre j'appelle s'appelle les menteurs de la République. Allô Oui, Mathis, ça va Oui, hein? ça a dit. Hein dit ça. La fille de Fabi Rasta. La fille de Fabi Rasta. Fabi Ramassar. La fille de Fabi Rasta. Mais certains disent que mon père s'appelle Hassan Faye. Mais finalement, après sept ans euh, euh, de vie, finalement, Faberasta Rasta a assumé que c'est lui mon père Fabe Rasta dit, hein, hein hein Mathieu trois points oui oui oui non non rapidement Mola Morgan a fait un live là là là il a sorti mon audio là vas-y vas-y sors le plus rapidement possible euh, euh, sors sors et fais un live ah, euh, comme tu m'as beaucoup comme fan, nga mythomane nga yow yow ki nga ma ne yaay Mathieu Maraz sors le plus rapidement possible pour le contraire comme les Sénégalais ils doivent lañ leen jàppee génneel nga ne doit eh, kii du Adji Sarr du même tu peux m'appeler direct ma dugg ci live bi ma ne kii du Adji Sarr kii du Adji Sarr kii faabi aji faabi rasta la aji faabi rasta mais qui du Adji ça, hmm? ah, yaa ok tu veux que j'appelle qui un autre menteur un autre mythomane du cercle qui Ah, bah Diakhaté oui oui oui je connais Bah Diakhaté attends j'appelle Bah ah lui aussi c'est un menteur c'est un mythomane ah, ok, ok, je l'appelle. Merci, merci. Donc, euh, je laisse à l'écoute, hein? ah Mati Mati Maram je saa leku après nga vais vous dire, je ma vous ci live bi vous dire, kii du Adji Sarr je veux le procès je pars nulle part ok merci. j'appelle l'autre menteur du siècle l'autre menteur de la république le malade mental Bah Diakhaté Bah Diakhaté mën a day ñuy dundee doul, ñi ñuy dundee ay duul. Allô Oui, oui. Ça a dit, ça a dit. Mais c'est les conséquences, c'est les conséquences. Tu es où Oui, oui, c'est Mati qui m'a donné ton numéro. Hein Badjarate. Hein Ah, tu connais mon père Tu connais mon père <laughs> Merci, <laughs> mais Badjarate, là, yow, da nga nak tu la tu te Tu bah bah du tour bah baa jaxate mom baa du tur moom dégg da nga mën a mais duulal ma foofu wuy ma wuy ma Mollah Morgun euh, est sorti gennewat na sama 3 troisième audio aji géej et et voilà j'ai appelé Mati Marasme mën a duul mën a kàcc mën a fen donc euh, ñu ne ma moom moo ma jox sa numéro pour mo wolé le plus rapidement possible ngeen dem au front ngeen défendre ma parce que Mollah génne na benen audio aji géej numéro 3 té nak day bëgg a sama carrière mi ngi naan foofu noonu ci audio bi kooku noonu di wax noonu nee na sax moom Amérique lay dem te ñëpp xam nañ ko te man Adji Sarr man bëgguma dem Amérique je vais le projet je vais waaw euh, oh, ajo waxal ndànk yaram non non chef de presse yoo ko yow da nga mën a duul dawal duuli ji ay ay ay taw tawal tawal tawal les douleurs de la république du Sénégal ah tawal duuli waaw ah, d'accord d'accord damaa ngi dem duuli ji man duul ba dama duul ba <laughs> sama bàyyi daa duul ba dee sama yaay duul ba feebar man ak bu ma duulul ñu laaj ma ko <laughs> man bàyyi xel bàyyi xel duul rek laa def ok koy t'inquiète pas demal nga nalaw boo tëddee nalaw duul rek laa damaa duul ba néew yi damaa duul ba naaw damaa duul ba sama bàyyi dee duul ba sama yaay faatu <laughs>

duul naa duula duula duula duul ba Gabriel Kane daw ma duula duula duula duula duul ba ma Hélène Gaye daw ma duula duula duula duula duul ba Fouta Tampi daw ma duula duula duula duul ba Kalifour Soo daw ay waay man man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay u u ay waay man yàqu naa waay man aji yàqu naa waay duul naa duula duul ba samay nit yi daw duula duula duul ba waa konaas daw duula duula duul ba waa konaas daw ñaari duulkat daal laa dese baa jaxase ak mati marasme ñu dañoo duula dul ba diwoo ko nañ déglu une dernière fois audio aji saar yi man aji saar maay waxe yéen nañ déglu une dernière fois audio aji saar yi duul naa duula duula duula duul ba maître duuleur Diouf nëbbatuma déggatuma la kon ñu déglu une dernière fois audio <laughs> Adji Sarr du ma man je veux projet je veux projet international duul laa duula duula duul eh, ay wax nga ay ah kii ay eh, pardon pardon pardon Mati Maras may woote oui Mati hmm? ama ah, woo Matar le Doulaar Matar le Doulaar Matar le Silibaar Silibaar bi aar bépp njagamaar eh? ah Matar le Silibaar waaw ku mën a la de le duulaar dafa ay ci duul aaru duul la jàng aaram yëpp ci duul la ok xaaral ma woo sama sama nijaay sama tonton mais mais mais mais mati mais mati mataar le duulaar dafa yàgg Amérique de dafa bipolaire bopp bi dafa tëb de quarante ans la def ci camion yi mënul génn foofu demul dikkul ay naloom dayut oh, moom xam nga dafa bipolaire mën naa ko wax dara mu jaxase ko dafa mën a duul mais day jaxase ay duul dafa bipolaire dafa yàgg ci camion yi nag quarante ans ci camion yi man daal la silibaar xaaral ma woo ko ok ok mais gaawul génn gaawul génn moo la ma yàq ne gaawul génn ok xaaral ma ma daal la silibaar la jagabaar buy aar bépp jagamaar ok ma gaaw ma daal la dulaar moom nag dafay bipolaire yàgg Amérique xam nga demul dikkut toog ci benn milieu rek mënu faa génn sonn sonn moom day duul di di di ko fàtte grave bàyyi man aji moom lépp lu ma am jël complot bi ñëpp daw bàyyi ma waaw Fouta Tampi bàyyi na ma ci <laughs> Hélène Gueye bàyyi na ma ci duulaari duul yi ma nekkee ñoom ñëpp daw <laughs> Californie Version daw na <laughs> xaar moom allo ma mataalu duulaar ma la mataalu duulaar waaw ma laa ji ma laa dafa non mais booy bu la wax dama ah, moo xam moo laa bay moo xam dafa moom moo laa bay booy moo laa man maa ko ngente booy booy xoolal laa xam booy booy gis nga laa xam man mataar man mataar gis bu muy juddu man maa xoolal man man booy yaay booy dafa judd rek man maa jël ko man maa daw ak moom mataar booy moo laa booy moo laa booy booy moo laa du foog booy booy moo yow man la aji de non non non xam la woy woy wa man man man Matar maay waxal man Matar la dollar maay wax man ne Mollah du fokk boy man maa ko këf yóbbu sax nii ne sama kanam lañ ko daggee këppit boy ma këf ko daw moom man man la dul boy boy sa boy man tey mu ñime man am na jamono joo xam ni man dama doon rab di naaw di mbëkk asamaan di wàcc di xot di juróom ñaari suuf di génn man man seen morom man duma seen morom waaye yow aji loo bëgg hmm? ah ok kon booy molaa boobu dafa génn baay booy booy booy booy molaa baay booy molaa dafa génn ah lu wax mu ne ah dafa génn ay audio mais baay bi dafa mën a dóor baay mais baay bi dafa mën a dóor baay bi dafa mën a fen ah, ah génne na audio mais booy aji yow tam kenn ku la bàyyi booy ay booy booy aji la nga pël booy mais booy aji booy ñëwal Amérique booy ma jël la ñëwal Amérique ma jël la wan booy yàgg naa fi de yàgg naa fi de ma dëgër de affaire yi dafa wow de waaw waaw waaw sama affaire yi dafa dafa congelé dafa yàgg booy man silib sax dama koy woon ma xam waaw waaw aji aji man bëgg naa xencu sa xeetu silib de aji bëgg naa xencu sa man la mataara silibaar bëgg naa xencu sa xeetu silib de man silib daf may daane yaa ngi fàttaliku Ellen Gueye yaa ngi dégg histoire boobu Ellen Gueye daf ma mus a dama mus a woo ma génnew ko benn silib Selim ko sama Selim jabar da ko jéem a iri pour tëddoon ko ci camion yi xam nga man rek fay ci camion yi laay rendee dëkkuma fenn damay taxawaalu 40 ans ngi ni Amérique mënu ma dem mënu ma dikk donc ci Selim Selim xeetu daf may daane xeetu Selim daf may ray bu Selim daf may daane string daf may ray man la mataar Amérique ngay ñëw ñëwal gaawal gaawal gaawal gaawal génn foofu waaye bul xaar procès bul xaar procès chef le procès bul xaar procès wax na si photo gaawal ñëw gaawal na gaaw na gaaw ñëwal Amérique je te gère man fii dama fi am ay gang dama fi am ay crypte dama am naa ay raykatu nit am naa ay feeskatu nit am naa ay dakkatu ko man Amérique maa ko man Amérique maa ko chef des des man maay papam man parce que papam ak man suñ ñaari maam yi ñoo bokk xibaar blouse yi fi lañ naan récolté di ngay gis noonu ñi nga ay bul xaar euh, say silib nag bul fa fàtte ah? bul fa say silib ah non mais mais mais grand bu ma ne grand ma ne grand ba sama rom baay laa sama rom baay laa man la maxtaale silibaar ma buy aar bépp njagamaar cagabaar wax wuy ma eh, bu ma fontoo booy bu ajee xolal ba ajaa mooy bëgg a yab nag aji aji boo xolal man du ma sa grand man sa baay laa man ak sa baay ñoo àndandoo ñoo defandoo coladera ñoo foowandoo ñoo montandoo baas yi ñun ñoo defandoo soirée ñun ñoo bindandoo ay invitation ak ay soutien booy booy booy aji bu ma fontoo booy booy rakk bu ma fontoo booy booy fils bu ma fontoo <laughs> baal ma baal ma <laughs> Matar le célibat koy wax célibat tey dama koy wax célibat yow mais booy bi dafa réew hmm, hmm. kii dama ne ma mun a ma Matar le célibat mais merde ah, kon man a ji je veux le prochain je veux le prochain je veux le prochain waaw ah. waaye j'écoute une dernière fois euh, euh, waay waay man moo laa man sama audio yi mu génn nii man kii yàlla dee moo laa yàlla dee sama fu ma demee ba am sama jàmm bu ma laqatoo mu génne ma bu ma nëbbatoo ci hôtel yi mu loqati ma bu ma numéro mu loqati ko bu bu ma dugal mu loqati ma nëbb samay silip mu loqati ko ma nëbb samay couche mu loqati ko ma nëbb samay string mu loqati ko ma nëbb samay dal mu loqati ko ma nëbbatu mu loqati ma ma mu nëbb numéro mu loqati ma ay loqati na ma waay ma dugal samay audio mu loqati ko ah ma déglu rek te jooy te noppi te dem sama yoon gis ngeen fu mu nekk nii ça fi fii da ngeen di mën carte sur table mënoo la loo def ma appuyé loo def ma appuyé si jeex na loo wax ma appuyé la foo dem nag nag ma woo téléphone ma ma wax parce que j'en ma jeex na léegi xam nga nu may def ah. man maay dem na leen xee damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënul ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul man ma def conférence de. muy neex muy nakari. waaw ci léegi nag mën na leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère am ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne conséquence léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bugg yow nga wax moo tax ñu lay koy kon. su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement amul benn problème yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñoo ne leen par force damay dem seeti ko mais le problème mooy je peux pas mënuma des Sénégal foog ma génn fii ba tey mën ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem dem fan ñëwaat fan lay dem ñëwaat sooy dem Amérique ngay dem dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man oui oui parce que man Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. de la ko de naa la ko li ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatam de ay ñaan ñoom Fatam de xaw ma ñeneen ñeneen ñi. ay tapis on sait jox yow. tapis mais ah? sama kanam la. sama ah? kanam la. yow sama kanam yow mi nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax tey yow kenn gënu la cee dëgg wala déet hmm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah ah loolu loolu loolu loolu da da da nga war a taxaw. léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa oo paa bi su ma jullee ba pare xool. waaw d'accord dégg nga. ok ok ay preuve la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo de pour pour def incha allah loolu laa loolu laa jëm di. ci matuwaay bi ak su sama gaay kon loolu la woon ah génn moom film la <clears throat> moo tax saa yu ni ko nettalee dañ koy scénariser quoi dañ koy scénariser ba ngeen gis film bi parce que film bi il faut ñu def ko noo xam ni parce ñom dañu film lañ monté euh, di ko tambalé ci ñepp ñu dugg ci film bi amna ay figurant amna ñu ñu jé film bi amna chef de bandi Mamour Diallo chef de bandi la Gabi chef de bandi caga caga caga bandi bu jigen bi mom moy ñom jor jañ donc affaire film la donc bu ñu leen koy netali genre film la nga xamni day gaaw dugg ci sen subconscient donc voilà film la won gis ngeen film bi aji géet bi moy aji géet 3 donc dañ lay indi aji géet 4 aji get cinq aji get six c'est ay figurant sen kat yi <laughs> ay mati marasme nga xam après mu ci film bi mu ñew dugg ci film bi ay ay Gaye ay a ñoo film bi la ay euh, ay satu doxot ci film bi ñoo ci film bi après xam nga dafa am ay kat yo xam ni ñoo mujj film bi pour orner donc film bu mat donc euh, a ngi 3 et bientôt incha allah nañ leen indil aji Gate épisode 4 incha allah one love kon à bientôt pour aji Gate épisode 4 ciao ciao one love